doon defar xam nga yoon woowu yoon la boo xamante ni c'est un problème yoon la boobu yoon la boo xamante ne ni ça rentre dans le cadre du euh, de l'AGETIP ak ADM dafa yàgg c'était depuis au temps de Souti au temps de Wuri Ba liggéey bi taxaw na ay yoon yoon yoon ñun bi ñu ñëwee aussi yëkkatiwaat nañ ko entreprise bi ñu ko jox mi ngi nii lekk na xaay bi arrêté na fi liggéey bi muy suñu naqar ñun ñëpp population bi ñëpp vraiment mbir ñu metti la.